jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di di leen jaajëfal di leen jox seen wàcci waay bu baax a baax tey nag maa ngi fii Colobane c'est ki nga xamante ni nii mooy Tonnerre 2 Tonnerre 2 mbokk yi ma doon bëre dimanche ma doon bëre ki nga xamante ni mooy Giro Seras maa ngi ciy gërëm ki ki nga xamante ni mooy Fallou Ndiaye njiital Ndiaye production moo tëggoon làmb jooju dimanche la woon ci stade Iba ma Diop digganteem ak Giro Seras mais keroog mbokk yi Tonnerre de gis nañ ko ñëw na ànd na ak ay mbokkam ñëw na ànd na ak waa écurie ñoo def li nga xamante ne moom la war a def tuus na neex na trop yegg si na ci digg yooyu balaa may ñëw nag ci yenn détails yi ma bàyyi ko mu nuyoo ñu doo ko wéyal waxtaan wi Tonnerre nuyu naa la. auzu ah, na mina seytaani rajiim ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yeneen bi dañuy santaat yàlla bu baax a baax a baax. di julli ci yeneen bu wér di ñaanal mun Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool te wér. di ñaanal sëñ Abdou Karim Mbàkke mu yàgg fi naaru maam Awa Faye waaw ma ngi koy bu wér a wér a wér man taalibi sëñ Fallou laa. Mm-hmm. waaw di nuyu samay mbokk nag sama waa dëkk. waaw waa Néewraan gis naa seen taxawaay gis naa mobilisation bi parce que Tonnerre dafa jóge ci jafe-jafe war a taxawaat. gis ni ñu mobiliser woo ku gis Tonnerre keroog li mu mobiliser nga xam ne ay mbokkam bàyyi ñu ko daanu taxul ñu bàyyi ko parce que xam nañ seen mbër. di sant waa Colobane gi bu baax nag di sant ñi may ñaanal li ñu waroon def yëpp def nañ ko yàlla moo ñëw maa leen di sant bu di nuyuwaat képp koo xamante ni si yaa ngi bëggee Tonnerre rek maa ngi lay sant bu baax te di la jéeglu waaw. di la sant bu baax a baax di la jégalu keroog ñu gis la bi nga ñëwee ci stade bi euh, bi nga ñëwee avant ngaa tuus bi commencé na ñëw mooy wane ne say fans ak say supporters que ñëwul teewal na la ci bés bi nga ñëw confiance nag bu bari lu waraloon loolu. waaw man ku ma xam xam ne man noonu laa mel. Hmm. ku ma xam rek xam ne man noonu laa mel man làmb dama koy jox akam ba mu mat. vraiment dama koy jox akam ba mu mat te combat bi lépp lu mu laaj rek. def nañ ko ci lépp luy maye ndam rek lépp lu làmb laaj rek def nañ ko ci yàlla nag moo yor dernière décision bi. waaw ma koy waat bu baax yàlla xam na ko defuma nen bu ma jógee stade dama sangu bu ñëwagum ci combat combat moom ñëwagum ci. mooy ñëw ci tuus bi keroog tuus bi ñu gis tuus bi nga tuus lu neex. nga tuus su neex bégal bégal bégal say supporters tuus da nga koy répété wala loo dencoon la parce que nag bu ñu waxantee dëgg Tonnerre gëj ngaa bëri. tuus bi répété wu ma ko yàlla daa dogal may ànd ak géwél boo xamante ne si dañoo yàgg. depuis may bëre mbapat ci la ñuy an muy racine. comprendre nga. man lu mu teg rek mën naa koo fecc. lu teg rek mën naa koo fecc. parce que man dama dégg. dama dégg quoi waaw loolu la mais répété wuñu tuus répété wuñ dara waaw. bu fekkee yaa ngoon ci open press bi sax li ñu waroon fecc yëpp sax feccuñu ko. Mhm. li ñu fecc ci open press yëpp feccuñu ko. mais ku xam Tonnerre xam ne bu seqeeg promoteur rawatina promoteur bu mel ni Fallou njaay mhm. mu doon feete quinze ans. Mhm. comprendre nga. Mhm. maanaam li mu wax ak yow respect bi nga ko war a jox mooy neexalal ko làmbam duyal ko stade bi animel ko ko mu kontaan nga bëre daan ñibbi xëj na nag daan bi yàlla moo ko yoroon. Mhm. waa te gis nga ni mu dogalee. waaw ñu gis Thiat Seck moo doon moo doon moo doon doon joué ci côté bi. mais ñu gis la nga doon def kii mais dañoo gis mbëri doon nañ dem di fecc sax mais yow gisuñu la benn moment nga daw dem ci xaw a ci ci ci côté ni ñu koy waxee podium bi. fecc wala yëngal gisuñu la benn benn instant nga daw. def non seetaanal dafa dafa dafa dafa. seetaanal seetaanal vidéo yi. non maa ngi fa woon kay. caat sec bi ma demee dama dem ba ci moom ñi ma àndal lépp laa la wax caat li ma ko jox ci keroog ci xaalis dafa bari dama ko maye ba di ko maye ginnaaw. kon xanaa boo dama fekk. waaw <laughs> dama ko maye ba di ko maye ginnaaw. ndax kooku dama ko bëgg quoi. wax dëgg mais ci biir làmb ji ak avant làmb ji. confiance bi nga amoon. confiance bi nga àndaloon. ñu ci bàyyi sax dañoo dem ba ne. Euh, tonnerre dafa xeeb ki nga xamante ne mooy Guiro Séras lan la woon. non ma koy nuyu en passage Giro Seras. Mhm. taalibi Serigne Fallou la comme man di ko ñaanal ndam bi jig ko. Mhm. ndax it sama mbokku mbër la mais du ñu ay noon mhm. parce que ñu muy àndal ku ci mel ni aada booy bool sama gaañ la. ñoo bokkoon saalu mag si bu ñuy entraîné xam na li tonnerre capable. comprendre nga moom ñaawal ko benn yoon Giro Seras ko benn yoon wax dëgg si yàlla maa ngi koy félicité. di ko ñaanal ndam li jig ko. bu amaatee yeneen combat yu dut bawal bawal yàlla may ko ndam. comprendre nga parce que ñoo moom ñoo bokk bawal bi. ñoo bokk Bawol kon dañ koy félicité mais xeebu ma ko. Mhm. cër bu mat sëkk laa ko jox man maa bëre ci biir bëre ma def ci erreur daanu. Mhm. waaw mais Giro moom ba champion la mais ku ko newoon mën nga daan tonnerre du ko sax gëm parce que surprise la ndax tonnerre moo bëre moo daan boppam duma ma saltel victoire am nag ndax borom baax la quoi mhm. waaw. mais ci biir bëre bi. waaw dañoo gis bu arbitre sifflé parce que yow man dama bëggoon ñëw ci yenn détails sax mais ànd nga ma ci biir làmb ji. Euh, bi ñu bi ñu gisee arbitre bi sa diggante yow ak moom ñu ci bari dañ ne Tonnerre cër bi mu jox Guiro Séras si biir làmb ji ak ni mu doon waxee cër bi mu ko jox bi ay sifflé dafa bari est-ce que noonu nga programme woon bëri wala boog loolu moo doon làmb ji. non Guiro Séras ci biir làmb ji bi ñu agsee ci biir làmb ji. Mhm. du question cër quoi. Mhm. li ma pare woon mooy fu mu nekk ma fekk ko fa génne ko. waaw day daw comme ni mu def wala mu daanu. Mhm. comprendre nga. loolu laa loolu laa décidé woon mais. Euh, bu ñu entraîné ba pare. dañoo am ñoo xam dañoo topp suñ ginnaaw. Mm. ñoo ñuy wax bëre leen nii ñu bëre nii. waaw parce que du ñu tegi conseil yi dem def leneen ñu ne nii parce que tonnerre bu ma saa bëre dañ naan ci ëppalam. ci mm. yàkkamte moo ko mm. daanee mm-hmm. comprendre kon bu ñëwee tey daa am ci jafe-jafe tamit. buñ defoon leneen lu bokk ak li ñuy wax dañ naan defati na la mu doon def. mais nag mais nag mais nag tonnerre bu ñu waxantee dëgg boo entraîné mu leneen ne Giro Seras pour nga daan ko. mbàccum gerte bi dafa tar fu mu fekk fu mu taxaw nga fekk fo fa xeex ak moom duma ko doo ko may jàmm nga xam ne looloo koy daan ñu téye looloo sa bopp nga nangoo téye sa bopp nag Tonnerre. Guiro Seras mbàccum gerte mi man maa ko ubbil. Mhm. mais boo xoolee départ bi amut woon sañ-sañu euh, xeex man moom song la doon préparé ndax xalaatoon na ne damay ñëw rek nekk ci kawam moom song mi la doon préparé. damay dégg bu mm. mais amul woon sañ-sañu moom gerte donte benn loxo lay sani laaw boobu mu sànni dootu ko sànni mukk ñaar yooyu mu sànni dootu ko sànni mukk parce que bi mu koy sànni daf ma sori te yóbbante gal gar làmb comprendre nga am na yoo xam ma ci nekkee détail damay damay damay kiiwal quoi mais mais bu ñu xoolee bu dajante coup mu dóor la bu ñu xoolee man boog jàpp naa ne loolu li gën a yàq sa làmb ci la bokk parce que dangaa jug mu dóor la coup freiné la moment boobu bëggoo woon lu dul jàppante ak moom parce que man gis naa ne dangaa jàpp ne xeex bi enjeu la moo tax ku nga bëgg a daw bëgg koo bëgg koo song parce que li nga koy daw di ko jàppi dafa mel ni li nga daw sax dafa bëri pour attaquer ko. waaw mooy xam nga bëri koo xamante ne si bëgg nga jeexal lamb ji te moom nanguwut a taxaw day daw rek Giro bu ma ko toppoon ci ni muy def ma bëree comme ni mu bëree lamb ji dina bëri ay avertissement de wala mu jeexee noonu. bu ma ko toppoon ci noonu mu mais man yabuma samay supporters yab goo xamante ne si damay ñëw ci lamb di def ay affaires yi ñàkk fayda wala leneen comprendre nga du ko def waaw du ma ci nekk di kii mais bu doon bu doon Giro dama def comme moom yàlla xam na ne lam ji par avertissement lay jeex waaw. mais ñu gis bi mu bi mu commencé xeex bi dafa mel ni xeex bi en zone ñu ci bàyyi nag dañ na tonnerre xeex bi la doon daw moo tax kutoo kut mu bëgg koo jàpp jàpp ko ba noppi bëgg a kutoo kut kele bi zong da nga ko zongale yëkkati nga ko zongale mu bañ nga forcer waat zongale bu mu bañ nga yóotu ca xabal wa te ca xabal bu ñëw. tonnerre amul benn mbër bu ko mës a dóor amul benn mbër bu mës a dóor tonnerre touché la Guiro Seras ma de man sama lii ngay gis nii Konia moo ma ko def lamb ji bi ñu demee ba war a génn maa leen doon dalal mais bi mu yuuxoo dal di daanu dóor ma ci la def loxo moom a dal fii yàlla xam na ne loxo Konia moo ma dal mais Guiro Seras sali doon sànni ay baaram la ma doon dóor mais dóoruma kuu bu bànkoon loxoom ah daf may jege mais ay kuul ay baaram la ma doon sànni waaw mais Guiro Seras du mbër buy dóor tonnerre mais ah. lu tax lu tax lu tax bi nga ko jàppee euh, zongale benn yoon zongale ñaari yoon nga ca caxabal ba mu leer na caxabal ba daa sooy ndax bu ñuy xool géosas su ma juubu moo la xaw su tuuti relance nga yóotu caxabal bi sa ñorul dernier songale bi ma doon songale boo gisee mu am dag moom mu contré ma mu contré ma sama loxo gauche bi moo fermé wu ci biir yaa ngi dégg mm-hmm. te Giro maanaam ku koy wax da ko naan Tonnerre bu la jàppee daf lay songale donte Tonnerre du songale rek la man mais ku ko wax loolu nga koy wax mais bëre bi bu agee foofu ñun loolu maanaam bëre bi bu demee ba toll ci songale mu leer lan lii moo gën a facile da koy def mais sama loxo bu góos bi moo fermé wu ci biir moo waral bi ma contré avant ma koy rocci rocc boobu ma ko doon rocc génn. Hmm. moo waral dagg boobu noonu. rocc bi ma doon lox rocc loxo bi pour génne ko moo waral dagg boobu. waaw moo waral songale bi dagg. di nuyu en passant sama waa Igri di nuyu Yaba Niang Yaba Niang maa ngi koy nuyu borom États-Unis maxu maxu dama koy nuyu maxu maa ngi koy nuyu bu baax maxu day son ci man maxu faramaareen borom New York maa ngi koy sant bu baax a baax a baax waaw parce que gars yi ñu son ci combat bi combat bi dama ci daj lu méttee méttee méttee méttee bi quatre jours laa de sama dëkk quatre jours laa de sama dëkk ngir préparer combat bi ku la gis moom ku la gis moom xam ne liggéey nga maa ngi nuyu sama benn booy benn sama benn booy benn supporter Giro Seras nee na ma bi ngeen simee ko dane dane Guiro Sera tey Tonnerre da koy lekk da koy rey tey moom nee na dafa tiitoon nee na loolu la wax ci xelam ku la gis xam ne liggéey ci combat bi mais caxabal bi parce que dañoo gis ne caxabal bi da la sori trop parce que fi mu taxaw la taxaw taxaw taxaw jonn nga roof caxabal bi te caxabal bi ñorul caxabalu ma ko de dama ko dama ko roof sama tànk dama ko roof sama tànk pour xattar bi ko mais sama loxo moo féete ci biir caxabal boo gisee ma dëgëral ko foofu sama loxo laa bëggoon a rocci yaa ma di ah, mais njool la njool la waaw loxo bi laa bëggoon rocci moo tax ma kale wu foofu pour génne loxo bi mais moom xam na ne loxo bu génnee erreur la hmm. moo tax daf ci def lu mu man képp ko li mu am lépp la ci def comprendre nga pour képp loxo bi pour bañ loxo bi génn comprendre nga hmm. parce que nit ki pour nga zongale ko day fekk ñaari loxoom yëpp féete ci biir yow sa loxo yi féete ci biti hmm. comprendre nga boo ko caxabalee bu doo am appui bu tegee doo am appui pour taxaw mais sama loxo bi moo fermé ci biir moo tax ma enseigné waat ca euh, kii euh, zongale bi pour ñu def taqalikoo ok moment da bëggoon da nga bëggoon ngeen. bàyyi bëggoon ñu taqalikoo waaw. mais moment bi mu lay takk di la di la di la xëcc. di la tegal si xaw ma di la tëral boog du moins. boobu dama la ne man maa rëcc sama loxo. moo tax rotation bi ñu def nii bi may rëcc sama loxo daf ñun ñaar ñu dem mu yomb tombeek may rëcc sama loxo mu yomb parce que sama poids dem. mais xalaatoon nga xalaatoon nga Guiro Seras daan jël boobu. non mosuma xalaat ne Guiro mën na daan Tonnerre Guiro Seras mënul daan Tonnerre moo man mooy daan boppam Tonnerre moo def erreur ci biir bëre daanu. mais du Giro Giro Seras ci moom doole sentiruma ci moom poids waaw. mais sentiroo ci moom doole sentiroo ci. boo xoolee ñi boo xoolee bëre maanaam ñi ñi muy daan souvent maanaam ñooy ñëw def ay bëre bëre erreur. comprendre nga te man dama gëm ne non dëgg la ma la wax. maanaam gis nga bëre boo juubu rek doo daanu. Mhm. te boo waree daanu cuuna ngay doon. Mhm. waaw keroog ñu bëri cuuna te tonnerre la ñu gis. Mhm. tonnerre lan la kii est-ce que tonnerre la waaw. lan moo nekkoon lan moo ne lan moo nekkoon erreur bi. erreur bi maanaam erreur bi mooy Tonnerre li mu war na def mooy bi arbitre soufflé yaa ngi dégg dem dal ci kaw Guiro Séras ah, fekk ko fa daan. lan moo la gën a métti ci combat bi. ma gën a métti ci combat bi mooy consigne bi ma bëre. dafa lii nga bàyyi li nga waroon def def lool parce que dama dama ànd ak ay nit ñoo xamante ne si tey euh, boo xoolee da nga naan ñii xanaa ñu bees lañu. fekk na ñi ñëw ci làmb ji mooy ñi daan ànd ak tonnerre bu muy bëree di daan ñoo de ànd ak tonnerre bu muy di daanu ñooñu ñoo mobilisé waat dajale seen i téeméer ak seen i mille francs ñëw fekk tonnerre ci stade bi dooleel ko stade bi côté bu ne boo xoolee tonnerre dafaa dafaa duy mhm. côté bu waaw man samay supporter bu doon dañoo dajale benn place xëjuñ ci tribune bële waaw parce que maa ngi leen di xool nag mhm. waaw di nuyu Fallou Ndiaye nag en passant bu baax a baax am loo xam dama ko cee fàtte woon moom moment dégg naa ñu si bari ñu ne tonnerre bi mu nee ba ci làmb ji est-ce que xawul tiit parce que am na benn moment bi mu jàppante Giro wax ak moom ci kaw public ci kaw tribune bi. day day day day bàyyi xel ñooñu ba di leen xool sax di bëgg a dégg ñooñu li ñuy wax. non boobu en maa maa maa ngi maa ngi koy ñaanal ndam tamit Mor Kanka. Mm-hmm. maa ngi koy ñaanal parce que siginaa. Mm-hmm. siginaa parce que tamit ay ay mbër lañu. Mm-hmm. samay rak lañu mais xeebu ma leen. mais bi ma sigee xool ko. daf ma ne dalal ci kawam. mooy jeexal lam ji. bi ngay sigi di xool turbine moom nga doon xool. moom xool naa ko ba gisanteeg moom mu ne ma dalal ci kawam. waaw. ah. giro giro fi mu taxaw moog turbine bi ñoo jàkkaarloo turbine bi la woon ginnaaw bu ma sigee jàkkaarloo giro rek damay xool damay gis ni ci ginnaawam. parce que bët dafa sori. Hmm. mu ne ma dalal ci kawam loolu waral ma fekk ko fi mu nekk. mu waral ma mer fekk ko daw ba jàpp ko jàpp ko parce que day daaw taxawul. mu taxawoon daal di ngeen ah. bëre lu neex. li nga voilà waaw mais taxawul. ubbil naa ko bëre bi reculer pour mu ñëw. mais mais mais waaw suñu premier avertissement suñu premier avertissement. Mhm. maanaam Tonnerre war woon a jël foofu avertissement. parce que moo arrière ba ci cumikaayam. waaw foofu ba ci cumikaayam. premier avertissement bi moom moo arrière ba ci cumikaayam. Mhm. arbitre bi waat na. Mhm. foofu moom arbitre bi dafa juum. parce que moment bi muy wootee. waaw di joxe gi avertissement ñooñu ñëpp d'accord nañ mais bi mu tourné ci sa ci yow nee naa arbitre bi lan lay def. waaw moom moo dellu ginnaaw. moo dellu ginnaaw ba ci cumikaayam ma ma arbitre bi wooñu mais foofu war ñu woon a jël avertissement mais nag démb démb démb dafa mel ni da nga demoon entraînement nga daan dimanche a toog jàngat làmb ji nga xëy dem dem entraînement moo tax man la erreur yi ma def moo tax te samay sama dafa am ay sama rakk yoo xam dañu topp sama ginnaaw war a bëre kon dama war a wane wane bon exemple démb dama dem contact yi waaw yaa ngi nii bu la neexee ma envoyé ko dama dem contact yi waaw parce que dama xam ne maanaam jarul nit di ma rectifier waa li ma waxoon gars yi dama leen woon ci làmb ji jarul kenn di ma conseil jarul kenn di ma conseil laa leen waxoon jaru ko waaw mais jarul nit di ma fii mu toll nii di ma critiquer parce que erreur bi ma def man xam naa ko waaw. barke yaa man bëri naa dama bëri dama dama jaar fu metti ci làmb man dama bëri mbapat bëri ay combat bëri mbapatu dóor ba agsi fii fi ma nekk ba fii sama dëkk mosuma fa dégg mu ñal te bëri naa fa ay 15 combat seede yàlla. comprendre nga ñëw bëre fii Dakar ay combat mbapat fii ci Dakar bëri naa fi lu mat vingt combat mbapat yoo xam combat nommé la mosuma ci dégg mu ñal Iba Mar ma ñëw di bëre musique ay musique bi may bëreeg moom Sa Thiès Siteu bi may bëreeg musique moo gën a tàng barki Sëñ tubaa ñi ma bëreel bëreeguma ak ñoom li ma daj ci làmb dajaguma ko ci stade mm-hmm. parce que buñ nee bëre dóor bëre dóor bi ma mujj a dem bébé mii laa àndal ak kooñaa mu bokk ci luur bi ma bokk ci lese bi kooñaa nekk poussin ñaari nag lañ tegoon ak tonu tonu koo ñaa moo jël tonu ciment bi bébé jeen jël luur bi ma jël lese bi nag yi foofu la ne bébé jeen jaay ko bébé jeen ñun ñoo ko paasaaleel bi ñu ñëw sax parce que bi mu jaayee nagam li mu li mu yoroon lépp da koo mayaat mbëri desewut saafara bi ñu bëree ba pare te loolu bëri door la woon euh, onze heures lañ commencé ba cinq heures ci fajar parce que suñu fàllu mhm. billaahi yàlla moo ma tiim kon am na yoo xam dañ koy sant yàlla sante ko yàlla ñaanal suñu adversaire yàlla ubbil ko yoonam parce que ñaanal lu benn mbër jafe-jafe mhm. jafe-jafe lii du lii du métit xam mooy métit xam mooy métit hmm. euh, ñoom papa ñi nga xamante ne si ñoom Moussa Dioum ñi nga xam dañ doon yëngu ci làmb hmm. ñu nekkoon ceeg ñoom hmm. xëy xëy rek ñu ne ñu jóge nañ si loolu mooy suñu métit mais lii du métit mbër bu ñu fay nga bëre dem ñu bëre nga daanu loolu du métti sa victoire la waaw ak machine ku ci ne nag mbër bu ci ne nag na nga ne carrément di nga toll ci moment yi yaa ma parce que tey dañuy jël exemple suñu garan yi balagay Gaye fii mu toll nii dañ ñëwoon kenn daxu ko bëre mm. mais fii mu toll nii gis nga fi mu toll mm. ku lu ne lañ koy wax estafam nii estafam nii estafam naa estafam nii en tout cas ñi muy àndal li Aziz Ndiaye ñi àndal li ñu mën ci Balla am na ñoo xamante si ñoo Balla Gaye ñoo bokk lu ne mais mënuñu xaaj ci Balla Gaye mm-hmm. kon lépp dañ koy sante yàlla mm-hmm. waaw ana booy sey bàyyul làmb mm-hmm. bi muy bàyyi lam lan la bàyyi lam waaw voilà ci ñaata defet la toog tey bu ñëwaatoon ci làmb ñu ñeneen a koy laaj ñu gën a kawe mais lépp sant yàlla la. lan ngay ak ñi nga xamante ne jàpp nañ ci combat bi. samay supporter dama leen di gën a sant di leen gën a ñaax ñu gën a jàpp. Tonnerre mi ngeen di àndal du yaafuus. que Serigne tubaa làmb dama ko jox cëram. dama ko jox cër bu ma sëkk. làmb bu Tonnerre amee combat Tonnerre dafa nekk mbër bu sérieux mais bu amee combat ci lay gën a sérieux parce que man entraînement rek laa xam. kon gën leen a jàpp yéen ñi ciy jàpp ñi ciy jàpp bari na trop. am na ñoo xamante ni si ñu ngi ciy jàpp te bëgguñu ma tudd seen tur comprend nga. Mm. mais ñu ngi sant ñëpp képp koo xamante ne si jàpp nga ci kombaa bi rek sant nan la waaw di sant monsieur le maire Ahmed Dieye maa ngi koy sant bu Ndiaye Abdou Assis Paye leena sama jigéen ndeysaan son na ci combat bi son na ci coono gu miti fu ne la ñuy andi dugg muy ba liggéeyam démb bi ma nee tonné dama demoon tijji sama place ndax dama bëggoona a benn wéccet sama yaram dafa daw jëkkëram ne ko leena soo dem làmb lan moo tax nga ñëw tey di jooy nii barke Sëñ Fallou comprendre nga kon dama leen di santaat bu baax di santaat Yaba Niang maa ngi koy sant maxu maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax maxu maxu euh, maxu vraiment ren maa ngi koy sant bu baax a baax borom New York Mami Diagne maa ngi koy sant bu baax moom euh, mi ngi bokk ci Amazon yi Amazon yi Thierno ci la bokk maa ngi koy sant bu baax di sant Amazon yëpp. Mm. jigéen ñëpp ñoom maam ma leen ñoom ñëpp maa ngi leen di mm. nga di sant nag ñi nga xam ñoo yoroon sama cumukaay aw ma seen fay. waaw lépp lu ñu waroon def def nañ ko di sant ñi may ñaanal bu wér a wér képp koo xamante ni si yaa ngi son ci tonnerre maa ngi lay sant waa fami ñangeen maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax aw ma seen fay mm. waaw ndax fan ci lañ ma ubbil di dajale seeni xaalis di ko ci def ñoom ñëpp sant naa leen di sant suma gaa yëpp waaw waaw Omar Fall suma gaa yi moom moo wàllu kaar yi maa leen sant ñoom El Hadj Sarr sama yaay Maguette Faye ko son na ci kombaa bi mm. son na ci torop di sant képp koo xamante ne si euh, jàpp nga ci rek sama coach su max coach su Max maa lay sant di la jéeglu wallaay li nga ma bëraloo woon mooy bu arbitre soufflé talalal sa loxo dox jàpp ko lamb ji jeex nga daan ko man loolu nga ma conseillé woon mais li nga ma conseillé woon dama dem ba ci stade bi ñu conse ma leneen ma def loolu yàlla moo ñëw nag ñëw na mais maa ngi lay tuub parce que bi ma sumee ko ah képp ku la Tonnerre liggéey na rek grâce à toi bu ma dellusiwaatee ci lam sax bu mel nii sama maayin sama sama xel ñëwaat lépp yow la kon man aw sa fay waaw foofu laay tëjee ci sama course. lan di sant waa Fami Fall ñoom Marème Fall Marème Fall gis naa taxawaay bi Anta Fall seen taxawaay xaas bari la yëkkati combat bi jox ma ko barki Serigne tubaa Mbacke waaw Thiaw Star Thiaw Star aw ma fayam Thiaw Star aw ma fayam barki Serigne Touba aw ma sa fay mbër taxaw nga ci Ousseyn nag ma génneel lii. Thiaw Star aw ma da cee jàpp. ci côté yëpp nag ñoom Ndiaga Mbaye ñoom Fallou mm. maa ngi lay sant Ndiaga Balla Gaye maa koy sant bu baax a baax a baax a baax waaw. Tafa Ndiane Tafa Ndiane sonn na ci combat bi. sama kooku moom a dugal ci làmb. tey bu ma amee benn jafe-jafe ci làmb rek yenn saa dama koy kontaan moom yenn saa yi ma mere ko parce que. man football moo nekkoon sama mbir. mais moom moo ma jëlee ci football bi indi ma ci làmb parce que man dama doon góolu ci école football laa nekkoon di góolu mu jëlee ma ci indi ma ci làmb bi waaw kon kooku maa ngi koy sant bu baax a baax a baax aw ma fayam di sant suma doomu ndey waa Bambey yëpp maa ngi lay di jël nuyoo bi di ko teg sama loxo doomu ndey bi muy maa ngi koy teg ci loxoom di nuyu ñëpp képp kuy son ci tan maa lay bëggee waaw euh, falu Ndiaye sant naa ko bu baax góor la garmi la parce que doo xam fu mu feete mën ta feete fen parce que promoteur la bawal bawal la tamit mais xam nañ yéeneem ci ñun ñaari mbër yëpp waaw xam nañ ci jéey maa ngi koy sant bu baax waaw maa ngi sant ñëpp daal képp ku son ci tonnerre waaw maire jéey sama sama waaw adversaire waaw moom defe naa ne boo soñoon gannaaw suba wala gannaaw suba ñu joxaat la combat waaw man nekkuma fi bàyyiwuma fi kenn bàyyiwuma fi kenn man bawal bawal laa fi bàyyi bawal bawal bu dem làqu ji feneen nag ne bawal bawal nga sax bu ñu boole dañuy bëre bawal bawal bu làqu ji feneen ne bawal bawal nga te gëmoo li nga wax bu ñu boole dañuy bëri suba suba suba bu ñu Fallou Ndiaye suba suba bu ma Fallou Ndiaye joxoon combat damay bëriwaat hmm. parce que dama gëm ne pare naa du mystique moo ma jàpp du dara man du ma balaame kenn yàlla suñu boroom moo ñëw ma war a daanu daanu naa damay sant ñëpp ñi nga xamante ne si dañ daan jàpp ci tonnerre dem ak barki dem ñi nga xam ne dañ daan jàpp ci tonnerre tey ba tonnerre dem ba ñoom mënatuñ cee jàpp ñu taxaw ñoom ñëpp sa naa leen man xarabuma kenn xarabuma kenn li may wax nii ci xol laa ko tibbee man tonnerre aw man noonu barki Sëñ Tuubaa dama jàpp ne nag tolof tolof mënta ñàkk ci doomu aadama man jàppaluma kenn dara comprendre nga aw man noonu man man yéenewuma kenn lu bon lu ma yéene nit yàlla na daal sama kaw parce que man xol bu rafet laa am dañuy toog sax ne ma tonnerre wara woon nekk mbër ni mu demee la nii rek mais barki Sëñ Tuubaa yéene wu ma kenn lu ñaaw waaw man ñëpp ma bëgg man ñëpp a ma bëgg man nitu nit ñi la barki Sëñ Tuubaa xale yu ndaw yi dañ ma bëgg ñëpp ma bëgg comprendre nga waaw di ñaanalaat sama adversaire parce que suma xol laa ko tibee yéene wu ko dara lu ñaaw ñun ñoo bokk dëkk bi comprendre nga ñoo bokk dëkk bi ñooy mayante xaalis mais am na ngor moom tamit parce que mobilisé na mobilisé na comme ni tonnerre mobilisé comprendre nga na indi na fula indi na fayda indi na ambiance indi na xadaru làmb comprendre kon moom aw ma lu ma koy wax dama koy ñaanal ndam li yàlla na ko jig waaw yàlla na ko feete ak ay mbokam di féliciter nag trompeur di ko féliciter di ko ñaanal moom it ndam yokku parce que nii la rek làmb te da ngay dee neex suba mu naqari bi mu daanoo bi mu ñëwee ci buntu kër gi ndeysaan maa ngi koy rappeler dégg na lu ne ma ne ko dalal rek encaissé parce que làmb bu jàllee foog critique am mm-hmm. yow tamit di la sant di sant bu baax ah, sant gi ma lay sant nag du fekk da nga farak tonnerre wala dara mais xëj na tey maanaam da ngay def sa liggéey ci ni nga xamante ne si noonu la rafetee yaa may dégg parce que lii nga nekk nii euh, muy Kewel Info bii nii bëgg wasaare làmb bii nii bëgg nañ nga yóbbu ko foo xamante ne si euh, fu kawe la quoi fu kawe la mu dem ba nekk télé parce que gis nañ ne an nga ceeg pas-pas an nga ceeg fula an nga ceeg fayda mm. waaw kon ñun dañ la ci sant parce que ay mbër yu bëree bëree bëri dañ la war a sant parce que seen combat bu taxawee grâce à yow la parce que ni ngay def maa ngi rappelé combat Koña ak euh, xeeru ngor bu taxawee ak yeneen i combat parce que dañ koy suivre mm. ñun amuñu benn émission bu ñuy raw ci yow kon sant nañ la bu baax di sant sama nijaay bu baax nag euh, euh, di ko sant bu baax sama nijaay mm. waaw maa ngi koy sant bu baax aw ma fayam day sant man di sant sama nijaay ajo mm. Moussa Yeri maa ngi koy sant borom ker laman musa Yeri ajo borom ker caaf maa ngi sant Tafatine sant naa ko baax moom Mbaye Guèye parce que duñ déranger wu suuru combat bi ñëw ndeysaan Tapha bi ñëw yëkkati xaalis jox sama nijaay xaalis yu bëri lool dama rus. ci hmm. bi nga xamante ne si moment boobu soxla nañ xaalis fi la Tapha Tine accès génne xaalis bu baree baree bari jox sama nijaay kon Tapha maa ngi koy ñaanal li mu bëgg ci carrière moo ko xam. Hmm. yàlla na yàlla def ba def ko roi des. Hmm. ci combat bii mu jëm yàlla suñu borom may ko ci ndam ndax mbay nit ku baax la te borom jom la. waaw ñu koy ñaanal yàlla mu oyofal ko mbay xolam moo rafet barke siñ Tuubaa Mbàkke day am ndam waaw tolof tolof nag mënta ñàkk mais dañ koy ñaanal ndax mbay amut amut xaar ma yàlla kenn ñoom njaaytin gaay yi nga xamante ne sii mooy loolu di santaat nag jaw star bu baax waaw koña de maa ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam ibu avia xam nga di félicité booy Diouf Boy Diouf borom kel la man maa ngi koy félicité bu baax gars yi son nañ ci combat bi jàpp nañ ci niñ ci war a jàppee ku ne xam na ne bi tonnerre sume koo ci làmb ji def na li mu a def ku ne xam na ne ay mbokki tonnerre wuy si nañ ko di ñaanal sama yaay mu yàgg fi lool di ñaanal sama yaay mu yàgg fi lool ba fekkee sama njëriñ waaw moor mbay Mor Mbaye maa ngi koy maa ngi koy kii moor mbay làmb ji jàll na mais jàppal ci combat bi ndax combat bi daa jàll te gën a metti waaw Mor mbay jàpp ci bu baax nag ma gënal lii ndax lii war naa koo jox Mor mbay mu gis ko ak jabaram liis liis maa ngi koy nuyu maa ngi koy nuyu baax waa sama nijaay ji la ñuy jël di ko yóbbu ci àll bi rek fu nu nu aw fa ak moom waaw foog ma sànni xeer waaw suñu caméraman bi waaw aada waaw moom it ku am pastef la ci affaire bi ah. am naa sa la hmm. waaw waaw ngeen yi noonu la tey ñëw seet mu jigéen ci combat yàlla dégal dogal mu am ci defet waaye ne di ko wax làmb noonu la làmb moom chaque ku bañ a daanu te daan na fi daan ay moromam daan na fi daan ay doomu jàmbur mu daan ñëw di kii na delluwaat dem liggéeyiwaat ndax li mu def noonu la daanu dimanche xëy lënd dem entraînement na gën a góorgóorluwaat te xam ne làmb ubbeeku na ci kanamam làmb nga ci kanamam te mën na ci am lu ne ndax comme ni mu ko waxee rek Boy Seye tolloon na ko fi Balla Gaye tolloon na ko fi ah Eumeu Sène tolloon na ko fi tey ñoom ñëpp dellusiwaat nañ ne dellusiwaat rek gën a liggéey maa ngi nuyu ki nga xamante ni mooy Aziz Aziz Global Business moo ngi fi ci Colobane di eh, hmm? lépp loo bëgg rek boo ñëwee ci moom di ko am. di ko jaajëfal bu baax a baax. lii entraînement bi démb la waaw. gis ngeen na ko gaa yi gën a jàppalewaat ndax làmb moom defe naa ne fola rek fola na ko a jàppalewaat ndax ku ko xool keroog xam ne liggéey na te gëm na boppam bëgg na dellusiwaat ci làmb na ko gaa yi gën a jàppale. kàddu yu mujj. waaw santaat yàlla rek. santaat yàlla bu baax julliwaat ci yenent bi di ñaanal sama yaay bu yàgg fi lool te wér waaw di nuyu képp koo xamante ne si yaa ngi son ci Tonnerre rek maa ngi lay nuyu di nuyuwaat Thierno Ndiaye waaw sëñ Saal Thiaw sëñ Saal Thiaw maa ngi koy sant bu baax a baax di ko nuyu moom tamit son na ci combat bi quoi. di nuyu sama papa Baye Moussa sama mag sama xarit maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu sama fam yëpp waa Ndiomène bi yëpp maa ngi nuyu di jël nuyoo bi di ko toog teg ci loxo sëñ As waaw sama waa ji laay bébé gaa yëpp nañ ci bilaay seen taxawaay Masamba ñaa Dan Ñang Dan Kebe waaw Gora Ñang ñoom Mbay Ñang waaw ñoom Mbay Waas Mbay Waas waaw di nuyu sama fan si club Tonnerre bi yëpp di leen wax ñu gën a jàppaat dégg naa critique yëpp nag waaw dégg naa lépp fi mu toll nii ku ne ngi expliqué maa leen di baal wax di leen santaat di leen gërëm waaw di leen waat bu baax a baax a baax a baax a baax waaw sama rak armée maa ngi koy ñaanal tamit yàlla ubbil ko yoonam mu gën a leer parce que dafa nekk xale boo xamante ne si dama ko jàpp sama fukki loxo parce que bëgguma tolof tolof yi ma am ci lam mo am ko moo tax ci yoon bu leer laa koy teg waaw di nuyuwaat papa Faye waaw di nuyuwaat papa bu baax di nuyu ñaari seex armée yi ñoom ñëpp maa leen nuy di nuyu newraan gi yëpp nag waaw sama rak Galas Joom Omar caw Omar caw maa leen nuy dégg naa critique yi mais noonu la demee yow sama rak nga waaw alaaji Sarr alaaji Daga Signor maa ngi koy sant bu baax alaaji alaaji jàpp na ci combat bi jàpp na ci billet ñoom ndooy Fallou Baye Moussa Ndour gaa yëpp maa ngi leen di sant sama bu ma limbee damay juum mais sant naa ñëpp sant naa ñëpp génneel ma lii ngir yàlla sant naa ñëpp ñëpp sant naa leen gërëm naa leen di kontaan ci yéen merewuma kenn ku ma mere it maa ngi lay jéeglu di la baal di xam ne nii la ko yàlla bëggee nii la kii li ñu waroon lépp def nañ ko waaw di leen jox beneen rendez ci beneen combat incha allah combat bi daanaka ñu ngi ciy dox nii sax waaw <laughs> ñu ngi dox ci combat bi nii di sant jigéen ñi Tonnerre ñi fan si ñi Tonnerre yëpp maa ngi leen sant ñëpp waaw di san sama sama bàjjan may may maa ngi koy sant bu baax may sama bàjjan sama xarit maa ngi koy sant son na ci combat bi waaw di la jaajëfalaat yow it Baye Djili Colobane Sañse Baye Diagne Baye Diagne Baye Diagne dafa nekk nit koo xamante ne si wallaahi tey laa la koy wax ba ma nekkee Colobane ba ma nekkee Colobane fii ba léegi mhm. du lekk dama koy jën man tonné du ma jën lekk duma ma jën naan lépp grâce à Baye Diagne Maguette sama yaay ñoom maire ji jikkeel bi man aw ma seen fay baa Diagne aw ma fayam Baye Jili Kolobaan sañ sa ndeysaan dama ko diggoon loo xam ne defuma ko ndax dama ko doon Baye Jili bu arbitre suuf lee rek fu mu nekk ma fekk fa daan ko nuyu ko barke maa ngi koy jéglu bu wér a wér ah. di ñaanalaat euh, sama waa écrit jàmm salaam di ñaanal suma ménagère suma staff la bokk Sewru Fall waaw di nuyu ñoom baj ñoom dam sama kot suuri ñoom ñëpp maa ngi nuyu di sant ñëpp waaw picca maa ngi koy sant di leen wax ne tonnerre mi ngi ñëwaat retour tonnerre yàggul dara dans un mois dinañ bëriwaat incha allahu rabi Ibama waaw bor bi dama koy fay. Hmm. gis ngeen noonu la demewoon tey Tonnerre li leen si loon doo leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen mbir yaa ngeen jëf.